concernant peut-être la presse man beneen conviction bi ma ci am mooy fay mënul ñàkk certes mais dañ nekk ci benn cas boo xam ne c'est un cas très sérieux te àddina euh, les loups ne se mangent pas entre eux mm. donc day toll foo xam ne man gëwuma ne képp koo xam ne tey sa teraanga dafa nekk ci média wala nga bëgg réew mi parce que mm-hmm. réew mu am démocratie mm-hmm. euh, li gëte gën a war a mun a am solo mooy une une presse forte mm-hmm. et puissante Mm-hmm. mais comme tollu nañ si jafe-jafe boo xam ne ñun dañu yor benn denrée euh, abstraite. Mm-hmm. muy li fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp bokk mànkoo ne euh, ni mu waroon doxee. Mm-hmm. par rapport ak yeneen réew yi doxewu ko donc loolu dafa war a am pour man un traitement particulier fay dina am mais nga bañ jàppee ne presse. concernant les impôts euh, domaines et le fisc mu bañ a yem comme yeneen entreprise euh, ordinaire yi nga xam ne c'est lucratif mhm. donc euh, man sama conviction mooy au moins waxtaan bu amee mhm. bu ñu génnee ci lii ñu yombal ko mhm. bu ñu ko mënul éponger ñu yombalal leen ko def ko moratoire boo nga xam ne du am gàllankoor parce que euh, peut-être asphyxier la presse aussi mooy dàqalu ay emploi te yaakaaruma nga ñëw si réew pour euh, régler le problème d'emploi le problème de sous-emploi et autres après ngay créer yeneen euh, chômeur mhm. donc loolu àndul donc te li fi nekk ci ci presse c'est des milliers de sénégalais ay techniciens ay euh, journalistes ay caméramans parce que mhm. bu ñuy nee presse rek ñi dañuy foog ne <laughs> euh, ay journalistes la mais aussi ay yeneen cadre des comptables des technicien et d'autres yoo xam ne ñoo yore administration yi ci biir entreprise de presse yi hmm. donc loolu c'est c'est c'est important moi je pense que sama conviction mooy bu ñu trouver une solution parce que hmm. tak aussi patron de presse yi comme ni mu doonee euh, ngay ni ngay demee tey si euh, yeneen euh, groupement yi dajale ay kuréel ci wàllu économie hmm. ñoom tamit dañu am droit tey yi nga xam ne yooyu la yeneen sénégalais yi am am jafe-jafe ñu war leen déglu. et mm. non pas ñu war a jàpp ne non moyen de pression et autres certes euh, kër gu nekk am na des brebis galeuses mais am na ñoo xam ne ñu ngi def liggéey bi ni mu waree mais nag euh, conjoncture bi ak li ñuy liggéey muy presse euh, ni li sa fay di waxee c'est une denrée abstraite mm. donc yemul ak euh, tey nga créer tey loo xam ne da ngay jaay ndox. wala mm-hmm. nga créer loo xam ne si BTP la wala leneen. donc yooyu traitement aussi jar na bàyyi xel. donc euh, loolu mooy sama sama gis-gis. lii presse bi di wax na par rapport ak euh, góomam moom mooy ñun ñooy génne yenn jafe-jafe yi am si yeneen secteurs yi. Mm-hmm. mais jamono jii nag dafa jot ñu nit ñu plaider pour suñu cause parce que instant bi nii. Euh, soo amul jafe-jafe bi yow sa morom am na ka euh, donc te loolu euh, du loo xam ne kenn yéene na ko kenn parce que mm. kenn bëggul ay do ay ay waa Sénégal wala koo xam ne dañ ñoo xam ne dañuy jël dañuy entreprendre di am ay jafe-jafe ngay tàccoo mm-hmm. donc bul xool sa mbokk boo xam ne mu ngi am mm. incendie au lieu nga yóbbu ko pour ngeen fay affaire bi nga yéene mën na hmm. mën na déteindre aussi sa côté wala mu am ay euh, conséquences yoo xam ne yow di nga ne euh, voilà euh, su ma yëgoon